asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. jeudi 28 novembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi. sunu lamb nag tey fa la ñuy xëy doore ko yëglekaay bi nag tey bi mu xëyee Siteu la ñu xëy ëndil ki nga xam ne daal moo di tarkindaa bi moo ne ci xët wu njëkku yëglekaay bii nga xam ne moo di sunu lamb Siteu nag yëglekaay bi mooy laaj nee na nag mu ngi jëm ci ñeenteel yoo xam ne daal ñeenteeli testam la maanaam ñeenti yoon yoo xam ni daal ñu ngi koy seet ndax dina mën a dem ci kaw wala déet mu mel ni kii nag ci ñeenteel ba ca la jëm moo tax yëglekaay bi laaj ndax Siteu dina corriger li nga xam ne nii day wala mu jubbante li nga xam ne nii ay erreuram la yoo xam xam ne faral na koy def ci ay combam yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw dina ko wax kot suba nag di ki nga xam ne mooy père Aline Diop bu Lamsaar moom nee na li leer ba leer daal Siteu jàpp na ne lu jëm ci wàllum fecc mi ak daw yu mel ni ki noonu nee na daa jàpp ne daal loolu moom bokk na ci li nga xam ne lu koy indil ay jafe-jafe la waaye jàpp na ne nag ci yoon wi ñu jëm wala combat bi ñu jëm seen diggante ak Papa Sow moom jàpp na ne loolu moom dinañ ko jéem a jubbanti ba nga xam ne ni daal bu keroogee dina tege ci aw yoon lam ci war a def mu def ko ca yem ca kepp te bañ caa def loo xam ne nii bokku ca wala def ca loo xam ne sax boog da koy déconcentré ba nga xam ne bu duggee ci combat am ca mën a ndam nañoo jël seen ay dispositif ci lii nga xam ne moo di mbirum Siteu rawatina pecc mu bari ma nga xam ne da koy faral di fecc ci biir làmb ji ak daw yu bari yi nga xam ne da koy faral di daw yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw dina ko wax keneen koo xam ne nii moom juróom-ñaari yoo xam ne toog na ko daanu ko teglante juróom benn victoire moo tax yëglikaay bi xëy ñëw sampub laaj wan ñu Modou Lo di laajte ndax Modou Lo est-ce que dina mën a téye kii nga xam ne nii moo di Ama Baldé wala am nay armée boog yoo xam ne nii yum ko mën a freiné la làmb xëy tey samp ko ab laaj ndax nag ama juróom-ñaari yoo xam ne déggul muñal teglante juróom benn ndam moo tax sunu làmb xëy di laaj loolu danañ ki ko mujjoon a daan moo doon guy gi ci atum 2012 boobu ba tey déggaatu fi muñal te mu ngi ci aw yoonam di dem moo tax sunu làmb samp laaj ndax du mooy ki ko nar a freiné wala déet sunu làmb xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi di sunu làmb xëy na tey ñëw ci muy koo xam ne nii wala rubrique boo xam ne nii daal làmb bitim réew la ko sunu làmb tudde comme ñu xëy woon nag mooy super jamono fi nekkoon nekkoon Rock Énergie moom nag mu nga fële nga xam ne daal moom moo di ca Italie di fa dund ñu wan ñu ko nag mu ànd ak soxnaam waaw yëglikaay bi di suñu lamb xëy tey ñëw wan ñu lu mel ni ki noonu tudde mbir ma boog lamb bitim réew waaye moom super jamono ba tey daal ca ay waxam mu ngay wax nee na li leer ba leer rek Balla Gaye de moom saa yu xëyee wala saa bu yeewoo mu ngay seet wala muy wër aw yoon woo xam ne ca lay jaar ngir mën a régler li nga xam ne moo di Eumeu Sène wala mu mën koo humilier lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tam yàgg na ba mu amee ak léegi juróom-ñeenti at toll na ci muy combat Moussa Ndoye ak Modou Anta moo tax yëglikaay bi xëy ñëwaat ne fi mu nekk ni daa mel ni romance boobu nag moom la nit ñi di xëy di ko waxtaane fi mu nekk ni foo aw daal ñu ngi wax ci diggante Moussa ak ki nga xam ne nii day moo di Modou Anta bu Thiès ñoom ñaar nag bañ bëree léegi toll na ci juróom-ñeenti yoo xam ne ni daal yoo xam ne ni boog ñu ngi leen di xaar ngir seenu romance mu mën a amaat yëglikaay bi moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da caa xëy ñëw muy lamb joo xam ne moo nar a am ci dimanche ji nu jëm le premier décembre ku ko teg di Fallou njaay yëglikaay bi di sunu lamb xëy na ñëw ci ka mu dalal nag mooy Abdou Bakhoum di ab manager yor Ama Baldé moom nag mu ngay xëy di wax la gis ca combat jàpp na ne bu favori amee moom du kenn ku dul kii nga xam ne moo di Maama Lamine ci kanamu jokkeel Abdou baaxum daal loolu la gis jàpp na ne moo gën a costaud te itam daa jàpp ne daal favori ba moom mënu koo jox kenn ko passé kii nga xam ne nii de moom moo di mbërum lamsaar mi xam ne nii de moo di jokkeel yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw diñu wax lu mel ni ki noonu bu ñu demee nag ci Leewtoo point net moom kañ fay fekk mooy dumbul million ya nga xam ne nag moom la ko lig Nicolas joxoon ba muy dem États-Unis mu mel ni ki nag dumbul fa mu nekk nii day wàccoon ak moom ndax nag ñu ngi ñuy xamal ne day un million ya na ko borom yëglikaay ba moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit mu ngi ci yëglikaay bi di sunu làmb muy di face à boo xam ne war naa dox ci diggante Pape Ndoye bu Fass ak Jackson bu Guédiawaye yëglikaay bi ne na di lay am ke tëgg làmb ja nag mooy ki nga xam ne nii day moom moo di baaba Jaw di Thiam production moo fa jaar sunu làmb xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu waaye bu buñ fa jógee tamit dañuy dem fa nga xam ne nag moo di ca làmbi simple ja làmbi simple ja moom yëngutu gi mu yëngutu fan yii daa mel ni dafa nar a di yëngutu ndax nag dimanche ji nu jëm day yëglikaay bi nag ñetti million mu nga ca sowal ka ko teg moo di Yékini ñu ngi na di xaar ndax rëg ce que dina ñëw ci làmb jooju wala déet waaye ña nga xam ne moom demoon nañ ca làmb ja te bokkuñu nuñ ci génne mu di góor a soog ak problème ba nga xam ne nii day moom moo di ki nga xam ne nii day mooy saara yëglikaay bi di su lam ne na kere ca teelee teeree gaal gi moom góor a soog ñu ngi ko toogloo ci demi finale ya saara moom ñu ngi ko éliminé fa nga xam ne moo di ca quart de finale yi yëglikaay bi moo xëy ñëw dina ko wax ñeneen ñoo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci ñoom muy Ousmane Ndour ak association ñi nga xam ne nii day ñoo yëngatu ci wàllum làmbum simple ñoom nag dinañ daal fas nañu yéene organiser le 5 janvier li nga xam ne nii day moom moo di làmb yëglikaay bi moo xëy ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu waaye li leer ba leer daal yëglikaay bi ñëw na tey ci combat boo xam ne jaaroon na fi tuddee ko flashback vendredi la amoon 31 janvier 2014 Demba Diop la amee woon Modou loo ko sequ nag ki nga xam ne moo di Eumeu seen combat ba nag yëglikaay ba commencé na ko ci benn photo ba fa mu jeexe ba na jël ba amee waaye loo ci mën a dégg daal ñi may déglu te di ma seetaan maa ngi sàkku ñaan ngeen ñaanal ma nag parce que nag lu ngeen ma nam ma benn rek nam naa leen lu ko raw fukk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 Amin Babacar ni ñëw nag ak sunu laam sunu laam dafa xëy na dalal ki nga xam ne mooy Siteu le phénomène de Lansar nee daal moom ak Papa Sow mooy quatrième test bi nga xam ni moom la war a livré si saison bi nu ñëw euh, ki nga xam nag mooy nekk seen staf bi muy coach Alioune Diop Alioune Diop daal euh, Alioune Diop lu mu wax daal mooy nee na Siteu dafa war a wàññi ñaari yëf maanaam fecc bi ak daw gu bëri bi avant mi bëri. waaw quatrième test maanaam ci Papa Sow la jëm waaw parce que euh, Siteu moom nekk na mbër bi nga xam ne nii maanaam tey yaakaar naa ne bëri na ak mbër yoo xam ne ñoo ko jiitu si làmb ëpp ëpp expérience am na ci yoo xam ne am na ci ndam am yoo xam ne ni tamit pass na ci àkute am ci defet parce que moo euh, zos ku na xam ne zosu ko jëkk ci làmb mais foofa am na fa ndam moo ki nga xam ne nii moom moo di guy gi mooy combat bi mujj a bëre dafa ñàkk tey mu ngi jëmaat ci Papa Sow kooku tamit yaakaar naa du mbër bu mag parce que moo ko jëkk si làmb moo ko ëpp expérience su bëre waaye loolu terewul nag ni mën na gagné combat bi parce que làmb la rek ku ci nekk mën nga gañe sa morom kantaan nag loolu ñu koy reproché maanaam ci fecc bu bëri bi ak daw bi loolu moom da nga koy seetlu si làmbam te làmb tamit dafa am lu mu soxla mbër mi bu fekkente ne da nga ñëw ñëw si làmb ji war nga concentré wu concentration bu baax a baax ba li la koy may nag mooy yow nga xam heure bi nga war a fecc fecc mu jeex heure bi nga ne nii ci nga war a doxantu nga doxantu heure ne ci nga war xam ne nii nag loolu nag li la mooy yow nga concentré wu et puis tamit nangoo déglu conseil ñu entraîneur yi

mooy euh, euh, Ama Baldé parce que nee ñu Ama Baldé toog na sept ans amul défaite te toog na aussi six ans six ans euh, tegle sept ans sans defet ak six victoires d'affilée Babacar. waaw loolu moom laaj la bu ñu samp que ni est-ce que Modou am na bagage bu mu ko freiné wala yu mel ni ki noonu waaw loolu nag li ñu si mën a jàngate moom yaakaar naa mbër mu la ñemee ba nangu bëri ak yow yaakaar naa ne am na xel mu dal que ni war na la mën a daan. te yaakaar naa mu loo tey defe naa ci sama gis-gis wala sama xalaat mooy làmb waratu ko mën a jaaxal parce que nag fi mu jaar ci làmb ak ni mu toll ba tey mu nekk roi des arènes yaakaar naa waratul am mbër bi nga xam ne nii war na mën a fees bëtam ci làmb laa foog ci sama gis-gis parce que yaakaar naa ku bëreeg Balla Gaye bëreeg Bombardier bëreeg Gris Bordeaux Eumeu seen Lac de Guiers ak ñeneen ak ñeneen yaakaar naa tamit amul mbër bi nga xam ne nii war nañ naan est-ce que kii mën na ci am xel ñaar ak yooyu terewul que ni nag Ama Baldé itam wax dëgg yàlla nekk na xale boo xam ne ku ko jël moom am nga client ndax koo xam ne toog nga 6 ans wa yoo xam ne daanuwoo 2012 ba tey nga gëj a daan teglante 6 victoire yaakaar naa itam loolu question la bu ñu jar bu ñu war a teg ci table yi laaj ko mais nag wax ji fa muy leeree ñaar ñoo koy tontu muy bu arbitre soufflé seen diggante loolu moom leer na Babacar nag tey journal dañoo génne benn rubrique bu bees tuddee ko làmb bitim réew te na dañoo xëy dala ki nga xam ne mooy super jamono super jamono nekkoon école de lutte euh, rock énergie euh, moom daal mi ngi wax si euh, biir journal bi dundam bi mu dund Italie la moo ko yóbbu woon Italie dund aussi def na foofu ay film garde la aussi ay garde corps star si mel ni ki nga xam ne mooy Jean Claude Van Damme ñëw na aussi si soxnaam bi nga xam ne italien la takk na ko foofu Babacar wax wax na daal léppam daal dundam daal mu la wax si journal bi. loolu am na solo Super Jamono yaakaar naa ne ku ne xam na ko ci làmb fii Sénégal fi la di bëree nekkoon Rock Énergie nekk génération ñoom Modou Lo Garga Mbossé nekkoon ay classe nekkoon Rock Énergie ba yàlla def moom mu jóge fi dem Italie tey ñi fi bàyyi woon ñu ngi ci làmb ji di mën seen sommet ku mel ni Modou Lo mu ngi fi tey c'est le roi des arènes Garga Mbossé mu ngi ci beneen côté bi ak yeneen i mbër yoo xam ne ni tamit ku ci ne am na ci loo nekk tey moom nag yàlla def mu dem Italie ba mu fa mu noonu ba yàlla def tey mu yegg ci benn niveau bi ah loolu du ñu mën def la dul félicité ku ci ba mu suy sax ay film di ko ñaanal yàlla rek que ni loolu nga xam ne moom lay mën a ci biir Italie yàlla na ci jëlee ndam ak réussite parce tamit yaakaar naa ne yàlla moom comme li olof yi di wax rek am na beneen yàpp bu dul jën quoi nee nañ du tëj buntu firi rido tëj fenêtre yàlla du def loolu moom faw mu bàyyi la benn porondol boo xam ne boo ca jaaree xëy na di nga mën a lijjanti sa bopp Babacar suñ jógee suñu laam nañ dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net mi ngi xamal ne ki nga xam ne mooy dumul te mu jëloon avance Luc Nicolas pour mu bëreek armée delloon na avance bi mi ngi États-Unis mais mu toogee ay at bu mu toogee ay at foofu États-Unis jël na daal décision delloo xaalis bi nga xam ne Luc Nicolas joxoon na ko muy mel ni Babacar nag comme que delloon na avance bi mun nañ jàpp ni dumul war na ginnaaw léegi làmb ji Babacar waaw moom mooy comme sànq lu ñu wax si suweer jamono rek du sorente xëy na am na ci mbër yoo xam ne nii tey ah des fois ñu nekk si làmb di bëree bu ñu duggee biir Europe wala biir États-Unis d'Amérique mën na am ñu nekk ci loo xam ne nii des fois dootu leen permettre ñu ñëw bëri si xëy na dumbul ñàkkul ci loolu la nekk parce que bi muy dem avance yu jàmbur la yóbbu woon waroon na bëri ak armée Luc Nicolaï joxoon ko ko muy 1 million bu ñu xëyee tey ñu na ko ko ah alhamdulilah ñuy que 1 million yaakaar naan xaalis du loo xam ne la bu fekkente ne borom mayu la ko nag la war mooy moom nga delloo ko yaakaar naa itam boobu ba tey itam mësuñu dégg tamit Luc Nicolaï wax ci wax dëgg yàlla ndax itam olof ne na lëg loo ko bañ bañ bañ fa nga tut guddi nopp mësuñoo dégg mu wax ci xaalis boobu xay ne nag bàyyi na ko mu jël temps ba yàlla def mu mën koo fay mu fay ko kon alhamdulilahi rabbil alamin waaw loolu am na solo Babacar si doon leen tàggoon leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay Merso nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu ki nga xam ne mooy May Sey depuis Ouest Foire nuyu Astan ne DG Brahma Chéri Khadija Diallo nuyu doom Mame Diarra Penda ak ki nga xam ni mooy bébé Moussa nuyu ki nga xam ni mooy Abdou Gueye depuis euh, États-Unis doomu ndey Sita di nuyu euh, A Cissé euh, Chéri Khoudia Cissé depuis Perocchio foofu si Italie Babacar. waaw nuyu naa ñëpp ziar ñëpp man moom damay nuyuwaat internet yi rek ñaanalaat leen jàmm di ko sàkku ci ñoom parce que xam nga tey nga nekk si benn affaire wala dara arriver la parce que comme li ma wax rek yaram buy tooy mooy wér mooy mooy wéradi ñu lay woo di la nemmeeku di la ñaanal daakaar naa loolu awuma seen fay yéen ñi suivre Leewtoo TV yëpp fu ngeen mën a ne si àddina bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax te di ko sàkku ci yéen ci barke yonente bi yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm barke yonente bi sallallahu alayhi mais tamit du def mention spéciale waa Leewtoo yëpp si jiital nag kilifa gi Pape Thialis Faye ndax tamit yaakaar naa ne ngay liggéey ak nit kii dara arrivé la mu jël maanaam mu jël décision wu def li mu war a def ci yow yaakaar naa loolu yombul te su ko neexoon mën na ne dama lay fay rek après demal nga gérer ci sa bopp ah mais deful loolu kon Thialis yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na sa kàttan gën a yokk mais yàlla na ko yàlla defal bépp doomu aadama di ko nuyu di nuyu tamit madame la ministre ah ki nga xam ne mooy Aminata Lô Dieng yaa ngi dégg moom tam maa koy nuyu bu baax a baax gis naa taxawaay bi Aminata Lo maa ngi lay bëggee bu baax a baax di nuyu daal képp ki nga xam ne yaa ngi fii tonton Diaw ndey Kumba Fall yàgg <laughs> waaw non yàgg moom mention spéciale yàgg moom yàlla na ko yàlla fay di nuyu yaay booy maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Mansour moom tamit parce que am na loolu su ma koy wax day sama xol day tooy quoi waaw parce que tamit xam nga nit dina nekk des fois ci benn circonstance boo xam ne dootul contrôler boppam yaakaar naa ne yow mi koy dimbali amuloo amuloo kiyam quoi maa ngi koy nuyu bu baax yàgg di nuyu Aïda Iba tamit di ko ñaanal suba anniversaire bi yàlla na ko jig yàlla ko yàgg a féete. yàlla takk soxna balaa koy féetewaat prochaine fois yàlla may ko soxna parce tamit il est de Iba il faut nga takk soxna di. moom man euh, maanaam ma bëgg di bañ jàpp rek jàpp naa ko man du ma jàppantu man lii rek laay supporté mënumaa supporté beneen équipe bu may seetaan beneen équipe sa sama bëri day fulu Réal kese laa mën a seetaan di kuy bëgg Réal mbere yëpp maa ngi leen di ziar di la ñaanal jàmm. félicitations